sunugal24.net soyez le premier à informer sport société actualité politique culturel reportage interview l'information à sa juste valeur c'est ici même sunugal24.net alors ñoo ngi fi nga xamante ni moo di Douta Seck gannaaw nga xamante ne waa Y'en a marre ñoo woote ci li nga xam ne moo di wàllu askan wi waaye tamit fi gis képp koo rapport nga képp koo xamante nga muy citoyen ma taxaw benn rapport kamaane kenn dootu ko présenté gën man xumaan Sunugal 24 mu ngi lay nuyu maa ngi di ziar bu wér waa Sunugal 24 namoon naa leen si si namoon naa leen xam ngeen fi may waxee en fait tey ñu ñëw fi nga xam bon Y'en depuis je crois depuis premier jour bi ba léegi saa yu ñu wootee damay damay fexe daal teew fekkee ko parce que euh, c'est la définition même de li ñu wooyee euh, des des euh, li ñu wooye de du citoyen de la citoyenneté militante ñun on a commencé di di def de l'activisme on a commencé à faire du militantisme mais Y'en a dafa ñëw indi activisme ci biir militantisme boobu mooy maanaam kàddu bi rek doyatul léegi fa ñu def ay jëf tey lu mel nii par exemple le fait que ñi nga xam ne dañuy bëgg a dagan euh, baatu askan wi dañu war toog ak ñoom wax poser ku leen ay question lii nga xamante ne peut-être que ne moom la ñu waroon def bu yàgg dañ ko waroon dañ ko waroon def lii benn genre fora la ñu ko waroon def maanaam depuis depuis élection yi candidat bu nekk waroon na fi toog jàkkaarloog askan wi pas ay militant pas militant dañu waroon taxaw ak askan wi askan wi poser leen question comme ni muy demee nii et je pense que loolu euh, nga gisee li nga moo di comportement a wax ci bon je comprends que ni ñi ngi si deux jours avant fin wu campagne bi am na ñoo xamante ne peut-être seen euh, boolewuñu woon euh, boolewuñu woon euh, programme rencontre bi ci seen si seen tournée campagne parce que Sénégal yëpp lañu ñu war a def tournée donc j'imagine que am ñoo amul jot waaye itam par respect tamit bu ma gisee benn Madické ñaa ñëw fii bu ma gisee Sonko ñëw fii par respect la par rapport à askan wi wax dëgg yàlla loolu noonu dañ ko war a delloo dañ ko war a dañ leen war a delloo njukkal ci loolu lu ñu li nga xamante ne moom la askan wi mooy maanaam toutes les couches de la population ñu ngi fi la plupart am na ay mag ñoo gis ngeen am ngay xale yu jigéen yu fi nekk loo xamante ne dafa xaw a dafa rare te élection yi ñu ngi gis de plus en plus xale yi di intéressé wu donc ñi nga xamante ne mënuñu ñëw peut-être que ni président Sall à mon avis su ñëwoon ba moomu naroon bett mais ñàkk ñëwam bettu ma quoi euh, bett parce que depuis toujours musul bëgg a sax waxtaan wax ak euh, ak waa opposition boo xoolee. yaa xalaatul ne bu ñëwee da ngeen koy sànni xeer comme comme niñ koy faral di defee. waaw parce que balaa mu doon nekk président ñëwoon na euh, seeti waa Y'en a marre ñëwoon na waxtaan ak ñoom ñëwoon na amoon na lu mu leen digoon amoon na lu mu digoon askan wi assise nationale bi ratifié na ko itam. donc je pense que loolu noonu six ans plus tard war na fàttaliku ne am na fu mu jaaroon loolu c'est important am na ay dëkk yoo xamante ne élection ba élection la fa président bi di dem la fa maanaam opposants yi wala tout le monde politiciens yi di dem élection ba élection la ñu dem donc par exemple tey sa ça aurait été très important ñu amoon possibilité euh, benn président Macky Sall ñëw wàcce boppam xam ne candidat la nekkatu président mais mu wàcce boppam modeste ñëw toog ak ñun ñu waxtaan mu ñu poser koy question même bu dee dañ koy sànni xeer mais justement lan moo tax sunu débat bi ñu waxoon ñu interdire ko euh, internautes yi dañoo dem ba lancer benn hashtag sunu débat ba ñëpp commencé si waxtaan ñu ne sunu débat sunu débat maanaam pour ñoom ñeent ñëpp ñu daje fenn mais Macky Sall dafa ne moom bokkul si maanaam entourage bu Macky Sall dafa ne Macky Sall du ci bokk ak yeneen gars yi ne nañ bu si Macky Sall bokkul duñ si bokk n'est-ce pas et je pense que loolu noonu day wàññi doole démocratie démocratie dëggantaan mooy nga jàkkaarloog askan bi wax ak ñoom li nga xam moom mooy sa xalaat nga wax ko ak lan ngay xaar ci ki nga xamante ne bis bu faluwee tey ki ñëw nekk li nga xam ne moo di njiitum réew mi ban message nga koy lancé ak looy xaar ci moom. erreur yi kële def bu mu ko def. bu fekkee moom mooy faluwaat. erreur yi mu def benn mandat bu la desee liggéey moo la moo la war. liggéey moo surtout faluwaatee benn mandat bu la fi desee liggéey moo la war. maanaam bu keneen bu keneen toogee itam ndax xam ne am nay am na lu bëri loo xamante ne war nañ ko xalaat am na déjà avant tout. secteur de la justice secteur justice éducation santé dama may dafa am yoo xamante ni foo ñu lijjanti ko ba pare pour dëkk bi mun a avancer bien. jaageen jëf ngeen bañ a boycotter bu kenn boycotter boo leen boycotter dëkk bi daal suppeeku dem leen récupérer récupérer seen carte ñi ko mën. su n'est pas trop tard ñi nga xamante am nañ carte ngir yàlla dem leen voté ji loolu rek laa leen di ñaan loolu. waaw baal leen ma de salaamaaleykum maa leen di fay maa leen di fay merci beaucoup ci dalal bi. tey euh, gannaaw bi nga xam ne def ngeen li euh, ban jàngat nga am si lan nga ci jëlee. jàngat yi ma am mooy am na ay politiciens yoo xam ne dañuy continuer di joxe kàddu te duñ ko sàmma te bëgg réew mi dañuy wax ne heure bi la ñëw duñu ñëw heure. je crois que les Sénégalais tireront une conclusion kooku benn la beneen bi mooy euh, on a vu tey quand les Sénégalais eux-mêmes posent ci seen ay domaines d'activité profondeur bi ah. clarté bi ak vraiment tamit précision bi ñuy poser seen question donc on voit aussi que ne il s'intéresse vraiment au pays et il s'intéresse au programme waaw jàngat bi ñu mën am mooy on a vu une mobilisation des jeunes et des femmes il y avait plus de jeunes et de femmes ñoo fi nekkoon c'est pour montrer ne loolu mooy Sénégal et ñun on a joué notre partition comme ni ko Fadel waxee lii ñu ci dara lu dul gën a yee askan wi ñu gën a xam problème mu diw ak pro astafurlah ñu gën a xam programme mu diw ak programme mu kee lan moo ci nekk que ñu mën a élire en fonction de programme mais pas parce que ethnie bii nga bokk wala pas parce que tarixa bii nga bokk wala pas parce que voilà làkk bii ngay làkk et cetera donc il faut que ñuy élire en fonction des programmes looloo taxoon ñu teg lu mel nii on est super content super réjoui que ça soit ça soit passé comme ça ci jàmm salaam te ñu continuer wax ci jàmmar ak salaam dem leen voté ngeen sécuriser seen vote sécuriser seen vote nag bokk na nit ñëw cokkaas leen ngeen def tekk di ko reetaan xam nga voté ci jàmm ak salaam ba mu jeex et après voilà lu lu lu lu sénégalais yi décidé rek mooy loolu. d'accord woote candidat yëpp ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko moo fi teew ak ki nga xam ne moo di maître Madické Niang ñoom ñaar yéen jot ngeen dégg seen programme kii nga xam ne moo di Idrissa Seck ak El Hadj Issa Sall de Pur teewuñu est que nekkul Y'en a marre ins bi dafay jug pour ki nga xamante ni moo di Sonko wala tamit Madické Niang vu que ñoom ñoo ñoom ñoo non peut-être ñoom la affaire bi ñor moom ñoom la affaire bi ñor bon monsieur Issa Sall je précise que ne il a été très très honnête avec nous daf ñu teel a wax ne vidéoconférence la koy defee malheureusement on avait des problèmes techniques mënuñu def vidéoconférence bi et il y a eu un problème de temps beneen affaire bi mooy euh, monsieur Idrissa Seck euh, à la dernière minute la ko tiwaawoon woo defe na mais ne woon na dina arrangé wu balaa la fin de la journée léegi lañ ko jot mu ne finalement du ñu mën a ñëw daal. lu munti xew mooy nit kàddu maintenant ñaar ñi ñëw mooy peut-être ñaar ñi nga xam ne ils ont pu aménager leur temps ñaar ñi nga xam ne euh, gis nañ ne vision bi arrangé na leen et vision bi neex na leen et tamit day permettre ay gën a xam seen programme mais c'est pas que ñoom lay yaanaamaa di jàppale wala quoi que ce Euh, ñu gis ne temps yi da nga benn son du peuple li nga xam ne mooy defalu la neex yaa tey te gis nañ euh, ki nga xam ne moo di Macky Sall bokk ci candidat yi mais itam teewul ngeen jël fi nga xamante ne fa la waroon taxaw ngeen def ci benn point d'interrogation dinaa la ci laaj mais itam est-ce que nekkul nag son bi la dégg wala itam est-ce moo tax mu ne ñii kat seen événement bi du ma ci taxaw non gëmuma loolu parce que maa ngi fàttaliku benn discours mu ngi ci net bi di daw où il disait où il comprenait le langage noonu la ko waxee mu doon defoon chat à l'époque waaw donc loolu mu daw wër internet bi donc gëmuma gëmuma loolu maintenant il nous a pas répondu moo tax ñu def point d'interrogation mais on a avisé les membres de son directoire xam nga fexe nañu ba moo ñoom ñu yëg ne am na lu mel nii luy xew woo nañ leen ci maintenant il a pas il a pas daigné répondre dañuy dañ koy comprendre noonu rek mais mooy li may wax les sénégalais jugeront Y en a dafa jóge ci benn campagne dee ko parel pour que nit yi dem retirer seen carte pare dimanche woote wàllu askan wi lii musul am ci Afrique lu mel ni musul am ci Afrique c'est une première ceux qui ont compris les enjeux de lu mel ni bëgg bëgg ko pérenniser et trouver que ne c'était c'était c'était vraiment une belle initiative mooy le président Madické Niang et le président Ousmane Sonko donc là donc ñun noonu lañ koy lire ñeneen ñu ñëwul on comprend seen temps am na ñoo xam ne ça a été perturbé et cetera mais ku nekk ak lu mu la jaral rek ku nekk ak lu la programme yu mel nii jar on retient on est là les Sénégalais aussi retiendront et les Sénégalais aussi jugeront merci à vous jaajëf. teg banee rek waaw ñu ngeen di fay. ñu ngi sant bu wér ñu ngi sant bu wér wér di nuyu ñëpp di fay ñëpp di nekk. alors gis nañ li nga xamante ne Y'en a marre daf ko woote woon muy euh, wàllu askan wi tey ban jàngat nga am ci loolu. waaw satisfaction lañ ci am dans la mesure où citoyens yi ñëw nañ laaj nañ seen ay question malheureusement amuñ tous les candidats pour diverses raison mais li ci amoon solo ba am solo rek mooy askan bi daje na posé na ay question am na ñu nekkoon ci net bi am na nekkoon ci direct bi am na ñu nekkoon fii ci biir mbooloo mi. wane rek que ne askan bi jot na tout le temps aussi ñu leen di bàyyi xel ci question yi demee nii donc am nañ ci satisfaction alhamdulilah la ñuy wax. Euh, cinq candidats la quatre candidats ñëw benn mi nga def benn point d'interrogation lan moo tax wala lettre bi demul wala nu mu fa demee. waa defoon nañ lépp luy li ci war yooyu jël nañ suñu ay disposition mais xam naa dafa yembutoon rek te bëgguñ commentaire ci loo xamante ne surtout période bi nii jàpp nañ daal ñi amoon ñi seen accord am na ci ñuy respecté seen kàddu ñëw nañ am na si ñëwul. am na ko xam ne mosuñ am kàddoom donc on l'a dit clairement. moo laajal la ko encore une fois lan ngeen di xaar ci yéen waa Y'en a marre ci ki nga xam ne moo nar a falu. liñ ciy xaar mooy mu delloo defar Sénégal séparer institution yi bàyyi di foyer justice bi jox ñu suñu ressources yi liggéey jox ndaw ñu liggéey régler paj mi régler njàng mi loolu kii di ñëw bu ko defee rek bu keneen ñëwee yoonam liggéeyam dina gën a yomb. jaajëf nañ fay nañ leen. amoon nañ yaakaar ne dinañ ñëw. ba ca njolaxtan nga ñu ne mënatuñu ñëw ñun nag ku nekk kàddoom la am nang koy sàmmee yow la concerné mais ñun duñ ci def commentaire euh, aléyaayu campagne bi métti na mais ñoom ñoo joxe woon seen kàddu loolu duñ ci def commentaire mais li nga xam ne moo ñu am satisfaction mooy que sénégalais yi sénégalais yi mobilisé wu nañu ñëw nañu jeunes yi jógee nañ ci ay bërëb yi fasantikoo ci biir réew mi yëpp ba Boulel ba ba Mbour ba Casamance ñëw fekkee bés bi saafonte bés bi tax na ba am na ay laaj yoo xam ne duñ ko doon dégg lu bëri ci campagne bi lu mel ni environnement bi maanaam nekkin gi ndax gis ngeen ne temps yi ci dakaar xale yëpp ngi soj ñëpp ngi feebar ndax poussière bu bëri bi nga xam ne dara waralu ko lu dul garab yi ñu dagg Dakar bi nekkoon Cap Vert léegi nekk Cap Béton désert bi di avancé ah ndox mi di avancé suñu environnement bi lu mënoo fi noyyi lu baax ndaxte oto yi soufre bi nekk ci gasoil bi ëpp na loolu yëpp di fi feebar yu bëri question environnement yooyu génn na fi te duñ ko doon dégg lu bëri civisme aussi ak nekkin gi ak question application loi mbay mi it béykat yi wax nañu lu bëree bëri boo ko dégloo aussi ay sénégalais yoo xam ne kenn yaakaaru leen woon ci yu mel ni ay handicapé ñëw seen as ñëw taxaw wax ba jooy ne moom mu sañoon du yalwaan mais naka la ko suñu état yi mun a jël en charge bu mën a yore boppam donc question yooyu yëpp ñu saafante ko ci benn bés wax ak Séné wax ak candidat yi loolu baax na te dana tax ndaw yi gën a sawar a wote ci dana tax ñu xam ne élection du yëfu politiciens yi kese élection yëfu sénégalais yëpp la sénégalais citoyens yi ñoo moom élection waaye nan lañ koy defee mooy wax ak candidat yi xam lan mooy programme yi ñu bañ di par parparloo ndax kii dafa bokk ci bii diine wala bii tarixa wala fii la jógee région bii la jógee wala bële wala ci bii xeet la bokk mais ñuy voté rek ngir Sénégal gën a jëm kanam te loolu bu ñu ko gisee danañ ñeme dem voté ji te xam ne démocratie nag loolu moo ko mën a sàmm fexe ba ndaw ñi surtout ñu jug voté ji massivement ku leen neex ñu tànnal d'ailleurs nee nañu fii note yi ngi nit ñi bëgg a joxe ci candidat yi fi jaar nañ dem joxe gooy ci urne ndax slogan bi mooy citoyen aux urnes nit ñi nañu dem xeex li ñu bëgg a xeex ku bëgg taal réew mi népp loo xam ne foog nga ne am nga ko ci ay jafe-jafe wala nga am ko yaakaar ci kenn demal ci urne yi nga voté nga voté ku la neex ci jàmm te bañ a répondre provocation loolu mooy njeexitalu bés bi te am nañ satisfaction pour ñun total waaye nag di gën yaakaar ne ci at yi di ñëw ndax Y'en a marre aussi nii la mën a bokkee di joxe ay yenn exemple ak symbole pour di ubbi ay yoon yu bees pour que suñu démocratie ji gën a kanam ubbi possible yooyu nag ouvrir des lii benn étape la ci gëm nañ ne ubbeeku na fan yi di ñëw at yi di ñëw dana gën a yaatu di regretter encore beneen yoon parce que amoon na yeneen initiative yu mel ni sunu vote yu buggoon def ay débat entre yi daal mais gis nañ ne institution yi wu wuñu ko lu mel ni CNRA encouragé wuñu ko suñu homme politique yi aussi ñenn ñi encouragé wuñu ko te dañu jàpp ne institution yi ak homme politique yi dañu war di accompagner di ànd ak askan wi la mu bëgg ndax askan wi tey moo bëgg candidat yi di saafante di wax ci mbirum Sénégal bañ a nekk di xasante ko saagante nga xam ne fitna rek lay yee ci réew maa ngi nuyu waa Sunugal 24 ñoom ay ay uskub ay toj toj rek la ñuy la ñuy ñoom daal la ñuy bëgg di génne ci man quoi <laughs> maa ngi nuyu maa ngi nuyu internet yëpp quoi waaw. alors ñu gis tey ngeen wootoon fi nga xamante ne mooy maison de la culture du Tasek wàllu askan wi tey ban satisfaction tey lan ngeen yëg. waa li ñu yëg mooy euh, c'est c'est c'est un début de l'histoire franchement euh, euh, am na ñu bëri ñoo xamante ni dañu fogoon ni sax euh, lu kenn mënul réaliser la parce que ñëpp xam nañ contexte électoral mu des deux jours pour clôturer la la la la campagne donc au moins candidats yi am disponibilité ñëw toog pour au moins répondre aux questions posées par les vraies questions posées par les populations Donc franchement, c'est une réussite. Là, au moins, on commence à comprendre maintenant que ñiy euh, laaj baatu askan wi ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax ci askan bi ñu ngi comprendre ni que leur force c'est le peuple leur raison d'être c'est le peuple sans le peuple ils ne seront jamais jamais jamais président donc ils ont compris cela di wax chapeau aux deux candidats qui ont répondu par rapport ak seen temps ni mu xat xat xat xat xat ils ont quand même venu répondre donc les autres Issa Sall par rapport ak aussi tamit seen kii de kii bi dafa faussé seen décès bi amoon fële euh, dafa faussé lu bëri bëri chamboulé seen programme alors du coup il avait même proposé de le faire en vidéoprojecteur mais candidat yëpp la ñuy yemale lu ñu nangul kii lii di ko bañal kële ñi ñi jël seen programme dugal ko ci ñëw c'est une chance pour eux donc l'émission euh, euh, euh l'événement était très suivi via le net via aussi euh, les, les, réseaux sociaux, via aussi la télé, et, etc., etc. Donc c'est leur chance. Donc, ni ñu ñëwee répondre yàlla na yàlla def tamit euh, wax dëgg yàlla mu nekk mu nekk yàlla nañ ko yàlla fay parce que ku faale sa askan yàlla na la ko yàlla fay te li ñu wane mooy faale nañu bu baax a baax seen askan jàngat bi ma ci am Euh, ñu gis ni cinq candidats lañ am mais yéen bi ngeen wootee donc quatre candidats ñoo leen jox li nga xamante ne moo di seen accord cinquième candidat bi ngeen defee benn point d' alors est que nekkul ne da doon xaar bu ñëwee da koy critiquer wala saay-saay au bi ba tey moo tax ñëwul. waaye yéen ñi fi nekkoon de gisal ngeen seen bopp yaanaa maar sax wootewul askanu Sénégal ñoo woote woon yaanaa maar de gisu leen benn euh, intervenant boo xamante ni ci côté ci yaana yaanaa maariste la ñi intervenir ñëpp. ñii dañ la naan waa napp gi lañ ñii naan la waa sàmm gi ñii naan la waa mbay mi ñii naan la waa waa euh, lii ñii naan la waa fii dégguloo fi kenn ku leen a waa yaanaa maa donc askan wee woote woon kon ku mënoon ñëwit waa askan wi ñoo lay laaj ñooy wax ak yow. waaw euh, man je pense que ni euh, li ñuy xaar ci moom ñaar ñi fi ñëw dégg nañ ko gis nañu interpellation yi donc. yàlla na yàlla def daal man daal ñaar ñi ñëw uyu si askan wi ah yàlla na borom defal leen ñu nekk ñi euh, kenn nekk ci kii yore réew mi ëllëg. Sunugal 24 restez toujours avec le peuple rek donnez la bonne information nekk leen ak askan wi rek. ku transhumé moom buubu ko la rek lañ lay wooyee. Soyez le premier à être informé. Sport, société, actualité, politique, culturelle, reportage, interview. L'information à sa juste valeur. C'est ici même, sunugal24.net.